صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر ñaari nit la gëna mokal seeni qasida sama Mam bi jur sama yaay imam Muhammad zahir ak cheikh talibé sayidina al imam al mahdi yu ñaan yi la gëna mokal seeni bind sama ñub du selaw magis ma gis damay wayantu léeg sax sumay nek nekk ak nit ab diir dama kay yé nek bo ma gisé may waxtu dofuma ni la mel tokna sama tudd sama lal kaddu guy burdala buñ doon jank burda zalamtu sunnata man ahya zalama ila ani qadama qadamahu min warami wa shadda min saghabin ahshahu wa tawa tahtal hijarati kashan mudrafal adami affaire yi sori lool ci sama xol xaw fu muy jógee ma jóg di topp kàddu gi ndekete kàddu gi fu sori lay jóge ma dem ba gis mbooloo mu toog seen kër di jàng ma toog ci seen wet ba ñu pare ma dellu fi may liggéey it léeg-léeg may wayantu xaside yi jekki-jekki rek daw dugg ci toilette yi parce que samay rangooñ may bett du ma bëgg ñi may liggéeyoo gis ma may jooy parce que damay lire entre les lignes damay xool li Serigne Touba di wax Mesin tuba ku sori ay caaxaan eh, la guys position bi mo amon ci xare samba sadio bi ta mo déranger won lat jor mu di ko inviter ay yoon pour lacc mu baña dem bi ko mbiri déranger dafa wax ndaw li lat jor yabalon nek astahyi antarani malaikatur rahmani tahmilu tahmiluni aqdami ila malikin ghayrillah nee ko dama am kersa malaakay borom bi di ma gis samay tànk gàddu ma may dox jëm ci beneen buur bu dul yàlla ku sori woon ay caaxaan la ñi mu yaroon ñu sori woon ay caaxaan lañu sëriñ Bachiru wayjuru sëriñ mun Muntaqa nee na dama musa dem jëm ci moom doon ko jox yóbbante bu buñ ma jox pour moom nee na yóbbante bi maa ngi ko def ci sama poche jamono yooyu poche yi ñu ngi koy ñawee ci côté droite bi loxo càmmoñ bi mo kay jekku right nee ma ñew tok ci kanamu serigne bamba jël sama loxo càmmoñ yor ci poche bi genné yobante bi téye ci sama loxo càmmoñ nee mu gëdd ma fixé ma ne ma ndax ni nga kay defe ab ta ab càmmoñ ngay ngay jëfëndiko nen tenena dema dama dama sama bay. nee man jël mbir mi transféré ko ci sama loxo droite déglul nee na ma réalise ni li ma dese ci yar ak ci roy rasulullahi moo ëpp foofu li ma ci am baayu sëriñ Muntaxa sëñ Tuubaa sori woon ay caaxaan la rabbi bi maa yashraxul azhaana qad fajaa bijaahi afdali man lillahi qad lajaa xamdi li rabbin karimin la sharika lahu wa sadri al yawma nuuran saatian walaa muhammadin salawatullahi fi abadin alayhi fi xisbihi kulli bihi kalaa ad'u ilahi alladi ammat mawaahibuhu li jumlati alxalqi maa yaxtaaru man baraa naajaytuhu jalla awaaman wa karramani takrima haadin wa kulli min lagan baria sëñ Tuubaa nee na sama lépp dafa set wicc ci lépp loolaale ak ay caaxaan sëriñ Modou Mamoun mu sëriñ Fallou nee na ma bi ko sëriñ tubaa di bind bi mu àggee ci yaa maalikal mulki yaa jallaan xawadin suñu boroom dani ko woowee nga ma tur wu ma neex ahmadu loolu loo ci teg ma defal la ko mu teg ci irham jami al wara yaa hadiyan radaa yëlëmal mbindeef yépp kon nañu xol suñuy xol nañu xar suñuy xol bëgg mbindeef yépp xar suñuy xol yërëm mbindeef yépp xar sunuy xol nangul mbindeef yépp te ñu xam ni ñu baax ñi fi daal dundal lislaam ci duniyaa ku mel ni limaamu ak cheikh bàmba cheikh naa te mooy cheikh saadiboog alxaaji malik ka jàpp mbiram ci cheikh omar kamal na alaaji omar mada xeex ngir ga lislaam kaza alxaaji ablaay ñas jiyaar naa sëriñ canaba sëriñ bu kunte ñii ñépp ñu baax lañu woon te tey ku ci nekk dem na ilaahi yàlla nga boole njaboot gi cig yiw defal ñu fépp fu am la maana saxal ñu ci diine may num koom te bañ noo nattoo cig bew wala ñàkk ak di sonn dimbali nu ba képp koo gis muy saxoona alhamdulilahi rabbil alamina salaatullahi summa salaamu rabbi alal muxtaari xayril alamina wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.